te du ko nekk tamit maanaam benn carte électeur dong nga ngay am te benn carte électeur kenn dong ngay wooteel. Mhm. kon maanaam bu duggee si émission maanaam ñuy rafetlu wax dëgg moo gën ñu naan ay ñi ay ay nit waa safara ay nit ñu bon ñeeg loolu yëpp maanaam xam nga dafa defatul quoi vraiment te Sénégal ñu jëpp benn yoon quoi vraiment lii maanaam dañ ko def ngir kaf ak réew. Mhm. parce que parce man mii di naan naan xaadimu Karim ba tey man ak Karim Wade mosul mosul mosul gisante bët ak bët waaw. xa xabaar xam sax nag ku dul xaadim ngay mu si dëkk bi quoi mais dañuy dugg di kaf di di réew quoi yow il vraiment ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax quoi vraiment di la ñaanal tawfeex ak teysir amiin mhm. waaw bu loolu weesoo aussi maanaam ñi nga xam ne maanaam dañoo bind lettre pour jox ko président Macky Sall pour ñu xoolaat parrainage bi maanaam rafet na béy wéy na mbuus mhm. maanaam parrainage bu parrainage boo maanaam moo am moo am fula moo amul fayda nekk toñoon parrainage pour lan la woon pour limiter candidat yi mhm. fu mu toll nii ñaata candidat lan vingt et un candidat est ce que Sénégal mos na am vingt et un candidat kon président bi lan lay jëriñ am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne du du nañu am ay fil ay fil par exemple ah, joxoon constitution seen dara matul ngir leen yàq ñi nga xam ne maanaam dañoo bëgg a dem. Mm-hmm. mais li mais xool lii yëpp yëpp boo yëpp boo xoolee ba si biir lépp lépp lépp Macky la Macky Sall boo xam maanaam moo ëpp Sénégal fa ne moom maanaam maanaam mu faalu mais kii koy woote moom mi nga suñu gouvernement bi. 2018 mm-hmm. 2019 ba ñu wax parrainage moo tax boo xam ministre la woon. dëgg la te puis 2019 2019 élection yi ba ba ba ñuy dem déposé euh, euh, parrainage moom ak Malick Gakou dañ doon xeex def di njëkkante kon moom tey kon moom tey ku nekk moo wax parrainage ba mu des moom. Hmm. maanaam li wax ñun waa Sénégal maanaam ñoo ñu war a war a am fulla am fayda am kerkal xool bu baax maanaam ku ñuy dénkaat su su suñu réew waaw. Hmm. te su Sénégal képp moo gën suñu nag yàlla na ko yàlla jox. Hmm. boo mën nga foo si aussi ma ñëw si si si double nationalité bu Karim Wade bi tamit. allo. allo oui Khadim yow rek la rek la ñu déglu. waaw parce que Karim wax na ko depuis deux mille dix huit nee depuis deux mille dix huit la bind lettre ne carrément waa France dale naa seen nationalité waaw. Ah, te tey ngi dégg benn ni Karim wax def ah, ah? que ni démb la France euh, bi comme quoi que ni Karim Wade ni ki démb la ñàkk nationalité française donc lan mooy expliquer euh, élection yi passé donc kon ñun Karim bu nekkoon président euh, ab français moo ñuy jiite. loolu wuy ma yaa may dégg ba xam nga wuy ma xam nga deux mille dix wuy ma deux mille dix neuf mhm. ay déposé ay kayitam kenn waxoon ne dafa am double nationalité yaa may dégg baax la ma la ma tax ñu ne ko bokk da def carrément ne ko si liste électeurs yi loolu da leen ko wax mais kenn waxoon ne ko da nga am double xam nga xam nga wax xam nga wax saa suñu nekk rek bu jotee dañ koy wax. exemple man mais mais ah? moom mi nekk président moom mi bëggoon a nekk président waroon na xam que ni pour nga nekk président waroo am double nationalité quand même. waaw waaw mais xam nga ko loolu moo tax wax nga mu bind lettre waa France ne carrément delloo naa seen seen seen nationalité loolu moo tax loolu moo tax bind ko. d' accord et puis waaye ñu ne carrément waaye ñu ne carrément boo bindee lettre envoyé ko waa France wala bi bi ko sa ordinateur. dana Sofna Mas doon na seen seen nationalité boo toog lu mat six mois bu la joxee réponse sax xamal na yow ñàkk nga seen nationalité exemple bi jox mooy lan mooy maanaam fekkoon man dafa dem liggéey deux ans jugee deux ans dem di jugee beneen trait ñu ne ma carrément mënoo liggéey si nawet bi may ne carrément fa ma dem liggéey liggéeyatu ko mais yéen waa deux ans boo la amee boo la amee ful da ngeen di def beneen kii nekkatu si ñun loolu moo tax waa waa France aussi bi ñu waa Sénégal c'est que loolu ba defee moo ne Karim ne Karim amatul nationalité Sénégal Karim sénégalais cent pour cent la te incha allah moom la ñuy fal mu nekk suñu cinquième de la République incha allah rabi te bu ñëwee maanaam célibataire yëpp yàlla na am jëkkër bu soobee yàlla. <laughs> amiin yàlla baax na. yàlla baax na yàlla dégg baax. loolu. <laughs> loolu loolu mooy programme Karim ñëw fexe ba célibataire yëpp am am jëkkër. incha allah ndax bu ñëwee maanaam góor ñëpp dina am xaalis góor góor takk soxna. ah kon tey maa votel Karim nag ndax ma jaar ci ci ci nguuru Karim nag. te wuy ma yaa ngi may dégg baax. Mm-hmm. dafa am dafa am ñaar ñoo xam ne incha allah pour Sénégal dox il faut que ñu dugal seen loxo. d'accord. mu mu benn muy Ousmane Sonko ba xool man nee naa ne bokk ma Pastef mais dama ne ko maanaam xool ku bëgg sama bopp ku bëgg sama réew laa. Mm-hmm. waaw et puis Sénégal li nga xam daf kaa muy pétrole ak gaz ak essence actuellement gisuma xool. gis nga ku ko dàq liggéey carrément ci Sénégal. Mm-hmm. te dëkk te xool dëkk bëgg mu développé ñaar ñaar loolu moo tax mu développé même Ousmane Sonko mais xoolal même Ousmane Sonko bu jëlee loolu yore la pour mu wax Karim Wade bokk moom liggéey ñu ne euh, Mame Ndiaye euh, réew benn kaa defar. dëgg la. Mm-hmm. réew benn parti doo mënu kaa defar. Mm-hmm. man bu fekkee damaa bokk damaa gis ko bokk APR boobu kaar na kii bokkul day am njëriñ si dama ko mënul liggéey. parce que Sénégal ñu ñëpp ñoo bokkaat Ousmane Sonko bu fekkee ñu ñu liggéey Sénégal ñu ñëpp mais waa Pastef kasi mu ñoo defal Sénégal waaw APR du waa waa bi noonu quoi Sénégal ñun ñëpp liggéey raat ñu ñu ñun Sénégal mm-hmm. waaw parce que bee tànk dëgg la mm-hmm. ñu wax Sénégal ñu nan nan defar suñu jukkoy xool lu ñuy waxee xool lu ñuy defee bàyyi yàq yi tamit quoi parce que yàq amul benn njëriñ am na solo Khadim am na solo. waaw maa ngi ziar baax na di ziar ñëpp nag waaw di waa parce que ak waa ñëpp daal parce que Sénégal ñoo ko bokk. nañ ko rafetal bokk lépp daal. waaw bàyyi wax ju ñaaw yooyu daal. jaajëf Khadim Gueye kàddu yi am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 88 628 73 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 Nes Dia maa ngi lay ñu ngi lay nuyo di la jaajëfal bu baax a baax ñu ngi nuyu Binta Sarr Serigne Ndiaye yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax 88 628 73 13 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 34 93 mën ngeen daal di continuer aimer partager live bi su ko defee waxtaan bi dina daal di gën a mën a yaatu li ñuy waxtaane tey bokk na ci euh, communiqué bi wala euh, lettre bi nga xamante ni collectif yi ñu daal di recalé bind nañu ko euh, ngir président Macky Sall daal di dugal loxoom ñu daal di tàmbaliwaat contrôle parrainage bi loolee nag Ousmane Sonko daf nay démentir ne nag moom yëgul ci ñun boobu lay mbir te bokk ci dem bay xam na ni sax président Macky Sall yoonam nekkul ci lu jëm ci ñu processus bi processus bi nga xamante ni collectif bi bëgg nañu ko moom nag jàpp na ni jamono ji lépp ci loxoy conseil constitutionnel la daal di des voilà beneen ponk bi bokk na ci Amadou Ba mi nga xamante ni daal dafa mel ni ku teg ay plan om plan om nag nu mu ko daal di bëgg a dérouler maanaam maanaam mu euh, def ay élections yi nga xamante ni euh, du ci jàmm lool benn allié wu Ousmane Sonko ndax nag ci euh, réclamation yi muy def ñu ngi ñuy xamal ni Cheikh Tidiane Dièye moom Amadou Ba la Cheikh Tidiane Dieye moo nekk plan wu seewu waa euh, Pastef voilà bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi Mansour ñu jël ko salaamaaleykum. salaamaaleykum salaam wa ñu ngi lay ziar mbokk mi di la jaajëfal bu baax a baax. dolli ziar. Mm-hmm. tur beeg fay woote mbokk mi. Pape Demba laa tudd Italie. Pape Demba Italie ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waa soxna ji waa Pastef xanaa du ñu ay sénégalais la. ay sénégalais ay sénégalais lañ koy. <laughs> ah kon ñoom amuñu droit voté wala amuñu droit fal kenn. am nañ ci am nañ ci plainte waa kay. waaw léegi moom Amadou Ba kon moom da moom kon moom gëm na ne ñi ñoo ko mën a gañe. Mm. Mm-hmm. ah déet dañu waxante dëgg. Mm-hmm. yow boo boo rombee ñëpp boo rombee ñëpp ñëw ci ñaari nit ñooñu yow da ngay yow xam naa da nga naan ñaar ñi ñoo mën a gañe ñeneen ñi mm-hmm. mënuñu maa gañe. mbër muy dem ci làmba ma mais képp ko kuñ la jox nga ni déedéet waaye kii ak kii laay bëre du ma bëre kii mais da ragal da ragal ñaari mbër yeneen yeneen mbëri mais yow yow yow yow punkal mi yow roi des arènes da kaa ragal mu indi mu indi poulain nga ni poulain bi da nga kaa indi mu indi ku koy ku koy sotti saafara nga ni kooku sax du ma bëre moom mais kan nga bëgg bëre mm-hmm, mm-hmm. mais ñoom ñoom nee nañu am nañu ñaata parrain la ñu am. comme waa 3 millions kon looy ragal ku am 3 millions kay looy ragal. Mm-hmm. mais ñoom est-ce que ñoom seen xel moo ngi ci ñoom ñii ah ñii boo montuwul seen seen waaj yi seen entraîneur bi leen teg mere mere na leen de. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que da ngay ñëw yow ne yow da ngay yow bëggoo kenn mais si kàttanu yàlla laa la wax si kàttanu yàlla yàlla lu muy bind bind na koo pare lu muy def def na koo pare gis nga soxna si. jaam pexe yàlla ak kenn xamul ne suba di nga yeewu kenn xamul luy xew suba yàlla noppi na ba pare mm-hmm. te Ousmane Sonko ñu koy vote ñi koy ñaanal ñu set wecc lañu man Ousmane Sonko fayuma yorul sama dépense yorul sama kër te saa yi ma jullee ñaanal ko ñetti at a nii saa yi ma jullee ñaanal ko mm-hmm. lu ma koy ñaanal du ma ko ñaanal sama bopp mm-hmm. damay jël sama alal di ma di ko jox te xam naa ne ñii di ko xeex gënuñu maa set parce que man du ma sàcc du ma fen lekkuma riba mm-hmm. golo du golo di liggéey baabun dunde parce que ñoom lu ñu bëgg dafa yomb ñoom moomu ñu ñoom dañu xalaat ne bési penc dafa am soxna si nit àdduna lépp loo fi def dangay ngay dee sa bàmmeel dañ la fi xam nga problème bi mooy mooy waajoo di doon dee rek ñu jagar jagar yóbbu ko sa armeel bi du ko suul mu jékki-jékki ne non deewuma ñu ne ko non waxu politicien la <laughs> nañu bàyyi ñuy def mm-hmm. te kii dem di déposer recours bi moom war naa rus parce que am na ay sët nit ki boo demee ba am yenn âge yi di wax lu dul dëgg da nga koy teg fële di wax dëgg te yàlla tax mm-hmm. ndax alalu àdduna moo tax ngay wax lu dul dëgg nañu gëm yàlla xam ne kii yàlla moo ko taal te du fay ku yàlla taal doo fay kii yàlla moo ko taal te du fay lu muy dundal si doomu aadama kenn du ko dundal si nit parce que ñii ñëpp mun nañu wax kenn genn wàllu journaliste yeeg ñëpp si si barkeem la ñuy dund ah ñeneen ak ñeneen di dund si barkeem nañu bàyyi yéen yi mm-hmm. ñaareel bi mooy Karim Wade mais Karim Wade moom daf ñoo gën a liggéey ndey Karim Wade moom dina nekk fële xawma Dubaay la nekk xawma fu mu nekk ci àddina di lekk di tëdd si fu neex yi xaar ba nit ñi liggéey di wax ba sonn nekk ci rajo ya ci télé yi di xataraay ñu rey leen dóor leen def leen lépp mu ne cëpp na jopp ne man maay nekk président waa Karim Wade moom wér na moom xooma français la xooma italien la xooma espagnol la moom nañ ko bàyyi mu ñëw mais du bokk bu bokkee tamit du gañe Idrissa Seck du gañe Amadou Ba di gañe ñooñu ñëpp kenn du ci gañe affaire bi raw raw na leen parce que nit ñi dañoo yeewu léegi bu njëkk ba benn télé benn rajo fa ne mais léegi dèjà ngi fi nit ñi dañuy utiliser seen xel. Mm-hmm. dañ yaakaar ñoom ñoo ñu gën a yeewu wala ñu dafa yaakaar ne ñun ay élitéré lañu nit ñi xam ci àddina bi nu muy doxee ñi ñuy tëj nag journaliste yi ñuy téye di tëj Sénégal nañu muñ gis nga procureur bi wallahi azim xoolu kuy nekk président mais boo ku nekk président ku ne war nga kaa ñamal. une semaine kaso mu xam lan mooy kosa parce que dafa yomb xamee kër rek nga ni dañu tëj moom war nañ ko tëj moom mu xam lan mooy tëj hmm. ñii dafa mel ne du ay ay doomu aadama wala ay xolu lañ lañu yor mais dañ day bàyyi doomu aadama yi ñuy tëj hmm. ah Sénégal Sénégal li fi nekk soxna si hmm. amul fenn si àddina tëj dóor rey mais dëkk boobu dëkk bu la Macky Sall yàlla na ko fi yàlla jëlee tantôt quelques semaines ko fi desee yàlla bu mu mottali sax lu ko fi desee mu jóge fi parce que dañoo sonn jërëjëf. merci Pape Demba doon wootee foofulee ci diwaanub Italie ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 88 628. 73 08 99 25 24 02 77 914 64 93 kaw Pape Sané ginnaaw contrôle judiciaire ba ñu ko defoon jamono ji daal dinañu koy wooluwaat procureur di sàkk ñu def ko de dépôt moom ci fàttali ba la koy toppee ab post bu mu defoon ci page Facebook doon rendre hommage commandant Tine kaddu yam ca yëkkati nag ci anam ba ñu ko daal rajee looloo tax ñu wóolu woon ko ñu teg ko loxo ab diir ginnaaw bi ñu bàyyi ko placé ko sous koy ah, daal di dégluwaat moom Pape Sané ginnaaw ba ñu ko wóoluwaatee bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu daal di koy jël woote leen ci 88 628 73 13 salaamaaleykum mbokk mi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. wa aleykum wa rahmatullah taala wa sama sët bi maa ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax. maam. yaayi maam xaadim gis nga sa doom ji de moom moom yow nag léeg-léeg yow nag sa doom ji léeg nga am loo ko sànni yu yu sew a sew ci suuf xam naa sa doom ji nag moo dafa bëri affaire moom itam. sama xarit la xaadim sama xarit la <laughs> il faut parfois mm-hmm. ma koy. mooy ko man mooy sama waajur itam ah waay waay maam xaadim ndeysaan. Mm-hmm. waaw ku nekk ak lam bëgg rek ku nekk lam ah, noonu rek la. Mm-hmm. noonu la ndax doomu aadama. yëg-yëg ca xol bala ne fa yëg nekk mooy nit ki bu laalee lu tàng wala lu sedd fa mu ko yëg-yëg foofu la nekk ci nit moo tax ke suñu yeboo rek kenn ku ne lam gëm mhm. euh, moromam gëm leneen ñu nangulante suñu biir waaye lii problème bi man mhm. dama mënta nangu ci ñu toll ci dund goo xam ne fii ci Afrique am benn kuréel bu ñëw taxaw lu waa jox leen mbooloo fal leen ñu teg leen ci kaw ñu taxaw di joxañ yi ren baax am naa ñii nañ bokk nii du ba yë- yëfi ñàkk fay mooy la naka la nit war a mën a toogee taxaw naan Basiir du bokk kii du bokk yëfi ñàkk fayda yooyu fan fan lañ ko teg. Mm-hmm. ah Macky Sall moo waroon jàpp ñu ne la xooloon gis ngeen li ma toog fii ki li ma teg fii du yéen ñii du yéen ñi ndaw ñii. Euh, euh, nation maanaam xeet wi askan wi ñoo gisoon démb ñu may néewal doole ñu ne ma duñ ko seetaan jàppale ba ba ma toog fi du ngeen yàq nag liggéey bi. moo muy dëgg. gis nga nit soo nekkee njiit bu nga am nit ñoo ñoro di ñu kan na suñu doye bi da nga jàpp fu seen ndigg bañ bëgg a dee nga leen man li ma jox du caaxaan fii caaxaan du fi toog fii bëgg fii toog li yëpp da dañuy yàqal seen bopp kan mooy kan mooy Amadou Ba ba war a taxaw daan ba siroo xaw ma naka sangam yow nga ñu lay jiiñ ñu lay jiiñ euh, loolu loolu ñu fekk la nga yore yaxab loolu loolu di ko seeñoo am na lu ñu koy jiiñ te ñëpp xam nañ ko ah ñu lay yow nag dëkkoo fi yow sa xamuñ say nangam sangam yow nga ñëw war a ñëw ñu jël kii rek jox la nga bëgg a fuy ci kaw nit ñu te àggaguloo fenn nit ñi kenn def leen noonu dañ waxante dëgg waaye te bàyyi caaxaan yi. Mm-hmm. Mamadou Bassir Gambi salaamaaleykum. jaajëf ah am na lu ma bëgg a jeexalee. Uh-huh. Euh, Pape ko bàyyi mu dem. Pape Sané nañ ko bàyyi mu dem yàlla. nañ ko mm-hmm. mm-hmm. bàyyi wallaay ndeysaan nañ ko bàyyi gis nga ma gisaan ñii ñoom ñoo la xeexal démb du Pape Sané du Pape Ali ñii ñoom ñoo taxawoon démb te boobu fil bi tey liggéey bañ doon liggéey yéen yen sut euh, kii yéen a koy liggéey léegi waaw dafa am loo xam ne bu fa bu fa rôle tolloo journaliste yi yu mag yi ñoo war a mën a taxaw nekkal askan wi di waxal askan wi dëgg waaye bu fekkee ne ku wax dëgg ngeen tëj yeneen mu jitam ci kaso gi de wallaahi maa leen ko wax. Mm-hmm. bu fekkee ku wax dëgg ngeen tëj yéen yéen ñuy tëj yéen ñi la ñuy tëj maa la ko wax xalaa kulli xaal Mamadou Bassir Gambi jërëjëf jaajëf euh, salaamaaleykum ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 88 628 73 08 99 25 24 02 77 914 64 93 foofu ngeen daal di jaar su ko defee rek da ngeen di mën a wax seen xalaat ci li ñuy daal di waxtaane tey bokk na ci Amadou Ba mi nga xamante jamono ji dafa taxaw taxawaayu ne du jàmmaarloo benn allié wu Ousmane Sonko kenn koo xamante jóge na ci parti bi di Pastef tax réclamation yi ngay daal di am Faye ak Cheikh Tidiane Dieye liñ ci gën a yaatal tey mooy Amadou Ba réclamation yi mu def ci Cheikh Tidiane Dieye mooy que ni jàpp na ne Cheikh Tidiane mooy plan wu C wu Pastef bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci liñ bi ñu daal di koy jël salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam Mame Diarra. ñu ngi lay jaajëfal di la nuyu tur bi ak fooy wootee. maa ngi lay ziar bu baax maa ngi wootee Mbour. yaa ngi wootee Mbour. Mbour Mbour. Mbour d' accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk mi yow rek la ñuy déglu. waaw waaw fi may njëkk samay kàddu damay lim ñi may bëgg a lim. Mm-hmm. muy Abdou Karim Gueye. Mm-hmm. le procureur Maham Diallo. Mm-hmm. Baaxum maître Baaxum. ak euh, maanaam ki sant Diouf. gis nga ñeenti ñi luñ mën a def. saa boo ñu gaaw ci. ci ak yàq ak jéem a jaxase wala tiital wala koqalaat koqal Sénégal yi luñ ci mën say ñu jéem ndax ñaari weer rek moo leen fi des. Mm-hmm. gis xam nañ après élection yi Sénégal am na yoon wala amul yoon ndax duñ lu toll nag droit lu toll ne maanaam loi ñu dénk leen ko ngeen di def di def lu leen neex gis nga nga Abdou Karim Gueye woowaat na fenn Sané nee maanaam moo moo defaat beneen recours pour Sané ñu jëm koy mandat de dépôt gis nga fii lu waaye ren di sa loxo lay laaj. Mhm. gis nga ñeenti ñi buñ xa bu yaakaar ne ñoom moom Sénégal bu yaakaar ne ne ku ñu ne nañ ko dem jëli rek ñu dem jëli leen tak tak ñu dugal ci kaso bi tëj jàpp doomu adama yi tëj leen ci kaso yi nii di jéem a jaay tiitalaat laat ñu xam comprendre sax mu mënuñoo tiital kenn mënuñoo xoqatal kenn mënuñoo benn yaakaar buñ yaakaar bi Sénégal yi am mën nañ cee dindi tarfat waaye dañ ndax seen bopp luñ mën a def nag sawe boo ñu def ko wax naa ko léegi ñaari weer rek moo leen fi des nañ jël hmm. seeni responsabilité yu mat sëkk ci yu ñuy def nañ ko continuer nañ ko assime tamit bu yaakaaree nen nit ñi ragal nañ leen wala nit ñi tiit nañu am ah, wala Sénégal Sénégal tollatut foofu Sénégal day baax mu neex leen ñoom ñooñu mu naqar leen Sénégal day baax Sénégal hmm. day am yoon dañu nekk am état de Sénégal yi xam lan mooy droit xam lan mooy état waaye comme lii ñu nekk nii salbulo yi ñu nekk nii dafa ne maanaam am nañu fitu kuñ bëgg a woon wala kuñ kuñ toog ne la nañ la woo jàpp nañ nangam saaga nangam li ci kanam rawul di bët mhm. lu too ta xam daa yàggut ñaari weer yàggul ñoom lañ continuer seen mission rek nañ continuer di jéem a tiiwal Sénégal yi ak di jéem a nappaate ak xoqata te yéen yi ba ngeen fi nekkee ba léegi benn Sénégal yi génn gërëm seenu jëf wala mu sant leen ñaanal leen amul benn Sénégalais bu gërëm li ngeen di doxale ñaareel ba ma cay teg mooy Macky sàll ak Ousmane Sonko seen seen seen guerre jeex na. Mm-hmm. loolu yàlla dogal na ko ba pare maanaam Ousmane Sonko du du moom Macky moo tax fii nii kuy débat ci Macky Macky Sall moom Sonko maanaam Ousmane Sonko li yàlla li doogaloo seen diggante jeex na takk ba ilaa yomal léegi amatul lu Ousmane Sonko di waxal Macky Sall muy jéem dox ci Macky di wax ak moom amul temps ndax koo xam ne nii mars deux mille vingt et un waaw depuis deux mille dix neuf ba léegi yaa ngi ko topp doo dem ba am na deux mois des ci mu lay bind leetar wala muy signé benn leetar ku jóge ci moom sax da koy jomb am na xam ne nit ñi dañuy dawal seen xel yi am na loo am na xam Ousmane Sonko jomb na ko Ousmane Sonko ba waree waxtaan fekkoon waxtaan doo ko ñor wala ay négociation wala ay complot wala ay teg def na ko bu yàgg. Mm-hmm. lim gëm da koo gëm mooy lan gëm na ne maanaam ci yoon la nekk te gëm na ne mën na soppi Sénégal te soppi Sénégal day aju ci dëgg ak leeral ak jub ak jubal yoon woo du ko wàcc bi mu nekkee ci kaso bi léegi ñaata demande toog bëgg a moom lañ ko def mu bañ. Mm-hmm. côté bu ne muy France ak Sénégal ak ku ne jéem na bëgg a toog moom lim téye ci la téye moom yàlla la gëm yàlla la yaakaar askanu Sénégal la jox boppam. amul lu ñu tiit amul ku ñu waxtaanal amul kenn lu yàlla def rek dogal na lool man lu yàlla dogal rek day nangu loolu moom jomb na la boppam diggante nag damaam diggante ak Sénégal yi wax ak ñoom li mu wax ak ñoom Sénégal yi dénk ko seen xol dénk ko seen yitte dénk ko ko seen yaakaar muy wëññeeku di waxtaan ak Macky Sall wala muy jéem a di nag Macky Sall ak kenn nañ bàyyi nañ arrêté gis nga opposition bi daa bari ñoo xam ne nii Ousmane Sonko toog fi enragé wu leen nañ ko wax te dund ñu ci bëree bëri Ousmane Sonko toog daal dina arrangé wu te xam nañ Ousmane Sonko bis bu toogee ci Sénégal liy soppi Sénégal sàcc alal jeeg toog muy dox jeeg yooyu yëpp dafiy jeex kon nañ dem ci élection yi Sénégal yi woote fal Ousmane Sonko ñu defar Sénégal Macky Sall nag naa ko say boo nga am ay conseil yu baax yaa ngi def rek yàlla dina weer ngay def loo def rek mu yàqu gis nga bis day ñëw da nga bëgg a rëccu rëccu rëccu day fekk jëf wees mhm. nit boo tollee ci war a tuub da ngay tuub tuub du wees comme yàlla mi ñu bind moo ne bàkkaar bu ngeen doon def lu mu rëy rëy bu ngeen demloo tuub rëccu na du ko defaat ma jéggaleen ko asubaak doomu aadama nit ba ngay def ay faqastalu ay bon bon ay ñaaw ba toll fenn tuubal dellu ci yàlla tuubal mhm. dellu ci senegal yi jéggalu Sénégal yi xam ne lii senegal yi yaakaar mënoo ci dara soppite jii senegal bëgg te yaakaar ko Ousmane Sonko ala kulli xaalin day am. Ousmane hmm. Sonko dara mënu koo tëral candidat te mooy candidat Sénégal moom du candidat kenn du Pastef du waa patriote yeeg du ci candidat kenn candidat sénégalais yi ki Sénégal yi bëgg a wooteel fal ko 2024 mu jiite Sénégal Ousmane Sonko la tudd kon nañ bàyyi seen jaxase yi kenn mënut a jaxase Sénégal yi kenn mënut a réeral Sénégal yi. fekkee mars deux mille vingt et un ba léegi ñu ngi réeral jaxase dara su dara di yàq dara yàqu fi waxuma la ba heure bii mu yàqu mission bi day àgg insha allah rabbi Macky Sall nag delloo si xelam nga xam ne ëllëg ci biir ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sedd la merci beaucoup jaajëf jaajëf borom Mbour ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax nga nuyu ñu waa Mbour yëpp 88 628 73 13 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64